lii tiitloo jaam bi nag sun uh, uh, yaay Aïcha dafa toog a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man nuuqishal xisaaba udhib ku yàlla réglé lox lox loxi ay mbiram nee na dina la dina rëq sa ndigg man nuuqishal xisaaba udhib mooy nit noo mënti def am fu ko borom bi bëgg a mën a téye su ko bëggee téye wax jooju yonent bi génne wu ci woon kenn suñu yaay Aïcha ni ko ba ci yow yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko ba ci man illa an yatagammadini llahu bi rahmati illa an yatagammadini llahu bi rahmati ba ci man sax bu ma yàlla lox-loxee dina am fu ma mën a téye lu dul yàlla atte ma ci yéen ma loolu yàlla atte ma ci yéen ma dem yàlla na yàlla atte ci yéen ma dem bal ulama salaf dañuy wax naan yàlla kum dugal àjjana daf la fa dugal bi rahmatihi waaye kum dugal safara daf la fa dugal bi adlihi bi adlihi wa xikmati kumu dugal àjjana yërmandeem la dawal ak ku mënti doon waaye kum dugal safara maandu teem ak xerañteem moom la dawal yal na yàlla dawal suñu diggante ak moom yërmandeem ba dugal ñu àjjana waaye nag bokk na ci lii tax yàlla yërëm ñu mooy ñu nit ñuy yërëm ñi ci kaw suuf irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sam boo yërëm ñi ci kaw suuf ka ca kaw asamaan mooy borom bi subhanahu wa taala yërëm la ñi ci kaw mooy lan mooy ay jaamam ay jaamam nit ki boo euh, bu liggéeyee ci jaami borom bi subhanahu wa taala ëllëg yàlla subhanahu wa taala mën na caa sukkandiku ba yërëm ko dugal ko dugal ko àjjana loolu mooy xadis bu njëkk bi beneen xadis bi muy xadisu Jaabir ibn Abdillah Jaabir ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Haram ci waa ansaar la Jaabir saxaabi la baayam saxaabi la yaayam saxaabiya la ñoom tuub na njëkk yonent bi di gàddaay di ñëw Medine ñoom danoo bokkoon ca ña jaayante yonent bi ca bayatul aqaba boobu baaye moo demoon muy Abdullah ibn Haram ànd ak Jaabir mu nekk gone Jaabir ibn Abdullah ci ñu nettali lu bari ci xadis ci la bokk te yéex naa faatu encore parce que dem na ba atum 84 ci gàddaay gi mu doogay faatu dem na ba mage dem na ba bët yi gisatul saxaaba yi bëri na ñoo xam ni dem nañ ba màggat ñoo xam dem nañ ba seen bët sëgg lu waram maanaam lu yeesul ñaar fukk juróom-ñaar ci saxaaba yi ñoo xam ne ci seenu tarjuma dan lay wax ni maanaam dan la ci kiwal ni la avant ñuy faatu gumba na Abdullah ibn Abbas ci la jaabir ibn abdullah bi ci la abdullah ibn omar ibn alxataab ci la anas ibn malik ci la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nee na qaala rajulun linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam yowma uhud kenn ci saxaaba yi dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisu uhud xeexu uhud xare uhud xare uhud ñetteelu at la ci gàddaay gi yonte bi bi mu gàddaaye premier année bi xeex amul xare amul jihaad amul ñaareelu année bi moo ren xare badar jullit ñi gañe leen gañe bu metti jullit ñi gañe gañe bu metti loolu ma juróom ñaar fukk wala lu ko ëpp sax ci yéeféer yi ñu rey leen ci am na nag lu ca faatu ca euh, jullit ñi loo ramat fukk ak ñeent foofu lañ leen suul man dem naa ba àgg fa id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakbu asfala minkum loolu boo demee ba léegi ma nga fa fi jullit ñi campé woon yéeféer yi campé woon fi ndox mi nekkoon ci bëri sax ci ñi ñi nga xam ne dañuy faral di jànge lu mel ne université Médine bokk na ci euh, machaayix yee sax dañu daa sonne ay sorties yoo xam ni dañ lay yóbbu ci yu demee na parce que yéen am nay sorties dafa am solo danga nga mën a jànge xam ni euh, daf lay leeralal lu bëri sax ci histoire ak ci texte yi. donc ñu dem foofu ñu ngi campé ca Badar waaw waaye texte yi ngay kii di ko théorie boo toog rek da ngay te da xam lu bëree bëree bëri ñetteelu année bi nag mooy xeexu Uhud boobu nag xawoon na metti ci jullit ñi ndax yéeféer yi wax dëgg yàlla ñëwoon nañ bay waaja dugg Médine jege nan Badar fam amee woon ak biir Médine donte lépp ci région de Médine la mais cent et quelques kilomètres la lii nag moom léegi fii ñu toll ni euh, Oxot quartier la ci Médine mu ngi mel léegi nga ne Grand Louga ci biir Louga wala ngeen kër sëñ Louga ci Louga Oxot léegi nekkatul sax ci biti kon kon jege woon nañ ko lool man sama dernière année sama année maîtrise Oxot laa dëkkoon kon léegi quartier la wala xeex ba amoon. ci njaalbeen gi julli ñi ñoo gañe woon mais ñu bàyyi ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xew-xew Xaalid ibnu Walid wër leen ndomba ba gañe leen mu metti woon lool nag ban sax annoncé ni yonent bi faatu na yonent bi rey nan ko damm nan bëñam toj nan jëwam deret ja di tuuru saxaaba yi koy défendre taxaw nga xam ni fett yi mi ngi leen di dal mais na yonent bi sallallahu alayhi mucc rek mbir mi tar am na kenn koo xam ni bi yonent bi mu déggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi affaire bi kenn ba yonent bi dajalewaat euh, saxaaba yi nag gën leen a xirtal nag ne nag fii ñu toll nii moom ku euh, jaay sa bakkan borom bi subhanahu wa taala jënde ko àjjana seen digganteeg seen euh, seen digganteeg dugg àjjana jihaad la fi sabilillah am xirtal leen ñu war a taxawaat sinon mbir mi dina dina dina ñaaw am kenn ci saxaaba yi fekk mi ngi yoroon benn tàndarma bu mu a lekk mu ne ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ara ayta in qutiltu fa ayna ana laaj mi ngi koy laaj nag toogul yoru kiyam di lekk feranku laay di waxtaan déedéet ci biir guerre bi ci biir situation yu metti ñu gis saxaaba yi ñu leen di rey benn par benn mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa loo gis ne man tey bu ma ma rayoon tey bun ma tey ci jihaad bi fan laay fan laay dem fu fan lay dugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko fil jannati soo demoon jihaad bun la rayee léegi nga dugg àjjana tàndarma bi mu yoroon di ko lekk mujj koo lekk da ko sànni fa alqaa tamaratin kunna fi yati tàndarma yi mu yoroon leneen lii sa daf may tardel te pourtant dagan na mu lekk fa kay fa nag boo demee ba poñatum àdduna dox sa digganteeg sa borom dox sa digganteek sa jaamu yàlla dox sa digganteek du gaajana tàndarma yooyu jàpp ne da koy tardel mu sànni ko fa alqaa tamaratin kunna bi yadi summa qaatala xatta qutil mu dem ci biir di xeex di jamaate ñu koy jam di gor ñu koy gor ba ñu rey ko mu tëdd